li tax ñu ne la caisse dépôt de consignation dafa nekk hors la loi lu simple la ndaxte ci suñu réew dafa am texte bu tudd code des obligations de l'administration. administration code des obligations de l'administration administration dafa ne article vingt cinq am amul benn structure boo xam ne dafay jënd wala benn wala boog lenn loo xam ne dañ koy jënd te duñ ko jaaree ci code des marchés publics même fekkante dérogation day am dérogation bi ci biir code des marchés publics lay nekk loolu article vingt cinq bu code des obligations de l'administration administration moom wax nous gis né au mois de juillet du passé parce que dafa euh, dafa dañoo wër journal officiel bi ba sonn bi ñu ko dee jël journal officiel ba sonn ñu gisuñu ko fan yii lañ koy doog gis. mu am benn loi de xam ne nationale daf ko jël en procédure d'urgence muy la loi 2017 32 du 15 juillet 2017 nous fixé organisation et fonctionnement pour caisse dépôt et de consignation. loi de ci 34 am daa di ne lépp loo xam passation des marchés la boo xam ne dépôt et de consignation jaare ci code des marchés publics dafay jaare ñoom ci li ñu wax seen manuel de procédure maanaam lépp loo xam ne njënd la lépp loo xam ne feuille de passation la lépp loo xam ne mode de passation la lépp loo xam ne évaluation na ñuy ni ñuy xayma marché yi ni ñu koy contrôler lépp dafay tënku ñoom ci seen manuel de procédure mais du jaar code des marchés publics loolu mu nekk une violation boo xam ne violation bu flagrante la mu nekk benn boulevard boo xam ne tey jii nii loi boobu ma lay wax nii may na ko caisse de de consignation te loo ak la réglementation des marchés publics article deux code de marchés publics moom moo ne muy présidence wala primature wala ministère yi wala public mais fàttali caisse de de consignation établissement public à caractère spécial donc deux public boo xam ne tey que war code des marchés publics alors que loi bii euh, dafay permettre caisse de de conscience bi nga M. monsieur Aliou Sall moo dirigé vous passez un marché yoo du coup d'arrêt ko code des marchés publics L'OLU, article 25, cinq bu code des obligations de l'administration da koy da Maintenant, tere ba tax euh, je pense que wax waxuma ARMP bi conseil de régulation pour ARMP parce que déjà moom directeur moom na na parce que amul légitimité amul légalité parce que Madame jeex donc donc conseil de régulation bi moo war daal di arrêté irrégularité bi nga xam ne fi nekk ni moom la caisse de dépôt et di di dund.